gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu àddina yëpp fuñ mën di nekk di leen ziyaara waaye di leen jaale ki nga xam ne fi jógee te waral lii tax ñiy def ñi di ko def ngir taxawaay bu rafet bi nga xam ne ak dëkkandoor yi ak rakk yi taxawaay ba rafet biñ ci taxaw. sant leen gërëm leen firndeel siñ cant ak suñ gërmaane waaye ci turu kan ci turu suñ mag Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moom mooy taawu Cheikh Ahmed Tijani nga xam ne ay rakkam yépp ñu ngi ci ay gannaawam maa ngi defee lii ci turam. dinaa gërëm président de la république ndax moom it am na relation boo xam ne amoon na ko ak sëriñ bi. muy relation boo xam ne relation bu am solo la bu àddina yëpp xam moom ci boppam xam na ko te am na loo xam ne jot na ko ci wax ci ñëwam bi nga xam ne moom la ñëwoon pour jaale si ñun ñii di njaboot gi it xam nañ ci lu bari ba tax na ku sàmm kóllëre la ku rafetal taxawaayam la ci kanami sëriñ bi ak ci gannaawam ba tax na moom it gannaaw buñ ko santee gërëm ko ci taxawaayam ñu ngi koy wax ne ko njaboot gi mu ngi nii njabot gaangi ni relation bi nga xamne mom la amone ak serigne bi ñu koy wax ne ko njabot gaangi ni na ànd ak ñom relation bobu continuer ndax olof Njaay fay wax ne ko kóllëre gannaaw lay fété xam nañ ci lu bari te it mën nañ ci lu bari ba tax ne insha allah ko kóllëre gogu bu yàqeewut ci mom rek insha allah du yaqo ci ñun ndax ñun bu dee samp ko kóllëre rek fii lañ ko fekk ndax sëriñ bi dafa fe dafa feddali kolere ba yàlla def ci kolere la dem kon loolu yaakaar naa bu ci tàggatalee njabootam dana yomb ci ñoom pour ñu wéyal ko waaye gannaaw bu ma gërëmee président yi maa ngi gërëm ki nga xam ne moo ko fi uutu nekkal ko fi nga xam ne moom laa waroon a gërëm sax jiitu may agsi ci président muy mohammed Ndiaye Rahma ndax ñëpp xam nañ taxawaayam ci kaolax rawatina ci serigne ci waye rawatina musamman ki di khalifa Mawlana Cheikh madat Tijani man na wax ne serigne lako defone bayam lako defone waye xaritam la won ba tax ne wane na ko ci bés bi taxaw na taxawaay boo xam ne jiitu président di ñëw man na wax ne mom la ci ut bayu dara te dew ci kër gi rek lako def man na wax ne ci dëkk bi yeb lako tassare dëkk bi kérok lépp lo xamne ñoko fi toggu mu jëm ci lu jëm ci wàll gan yi mën naa wax ne Mouhamed Ndiaye Rahma moo ko def kon kooku foog ñuy fësal taxawaayam ci kanami président mu xam uutu gi nga xam ne moom la ko uutu ci Kaolack ak ci gannaawam tey ñaan mu seet nim ñi defal Mouhamed njaay wala fu mu ñu ko tegal wax dëgg yàlla ba liggéey bi nga xam ne mu ngi ko koy liggéeyal ci Kaolack ak fudut Kaolack liggéey boobu gën a avancé di Cheikh Mouhamadul Mahi ñu ñaan yàlla dëgëral ko ba lépp loo xam ne it magam def na ko fi dëgg yàlla mu def ci wax dëgg yàlla lu ëpp loolu ndax yéene nañ ko ko yàlla taxawal ko yàlla dimbaleel ko nekk na nit koo xam ne ku joxoon sëriñ bi cër la lépp lu ko sëriñ li sëriñ bi daan def daf daan wax ak moom wax ak ay rakkam waaye temps bu mu ko waxee rek daf koy wax ne ko sëriñ bi damaa bëgg nga def li ngay def ba pare soog maa yëgal ndax ñun yow rek la ñuy déglu lépp loo xam ne def nga ko ànd nañ ci loolu loolu képp ku ko daan wax sa baay nga dégg ko rek wax dëgg yàlla am war ngaa góor góorgóorlu ci lépp lum soxla bëgg koo taxawal ci pays bi rek kenn warul la cee jiitu te loolu ñun ñu ngi taxaw ci bunt bi incha allah ni ko daan defee ak suñu baay ñu ngi taxaw pour ci ronam lépp loo xam ne santaane na ko rek incha allah kenn du ñu ci jiitu.